internet yi ba Sénégal Actu dal leen ak jàmm ci xibaar yi nag dañ koy doxeek Ousmane Sonko mi war a def nag déclaration tey jii nii rek euh, mooy bu 19 heures demi jotee xam ngeen ne bu baax a baax Ousmane Sonko ginnaaw préparé woon ay vidéo yu bëree bëri rek yoo xamante ne si ne nag instant bi Sénégal euh, rek moom moo koy diriger li nga xam moom moo di politique bi instant bi ndax xam ngeen ne bu baax a moom mi xam moo di usmaan Sonko instant bi ginnaaw mën ko tëjee. Euh, ak kaso instant bi nag de Ousmane Sonko tey jii nag moo afoon amalaat nag beneen vidéo boo xamante ne si nag exemple bi sénégalais yëpp rek ñoo ngi koy xaar bu baax a baax nag ak li nga xam si nag moom moo di déclaration yoom ñu war kaa xaar tey jii nii moom mi nga xam moom moo di Ousmane Sonko ginnaaw nag vidéo yi nga xam si nag moo ngi koy préparé incha allah rabbi kon nag leen rek lay def nga xam Sonko plan yi nga xam si nag moo koy teg nii yii nii yëpp rek nekk na plan yoo xam si na doy na waa baax